dina ku xew xanaa sept sages Sud Quotidien xëy xamal ma ni fi ne day bu doon théâtre la da naan sept sages en scène ñoo ca des nag ci dépôt candidature yi ndegam ndar képp nañ ko L'Enquête Quotidien naan kon fi mu ne kay kuy xale demal foofu yi Tribune yéen kay naan kon moo tax it bari nañu fooy wala L'Info naan kon ngir jëm 2024 virage bu njëkk bi day fi mu ne foofee la ñu daal di toll Tribune yéen kay naan kon lu toll ci ñaari téeméer juróom benn fukk ak juróom ci ay candidat ñoo retiré woon fii ci fi mu ne nag ak fi mbir yi toll daanaka juróom fukk ci ay candidat ñoo dem conseil constitutionnel déposé seeni candidature le soleil yéen a kaay naan koon juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeent ci ay candidat ñoo daal di jàll nag ca conseil constitutionnel le témoin yéen a kaay naan koon waroo la nga xam ni moom moo amoon ca parrainage ba daanaka lu jege ñetti téeméer fàq dem jëli fiche yi nag fi mu ne ci cappaandaw ga juróom-ñaar fukk ak lu tegu slëb ñoo taxaw nag ne dañuy dagat baatu askan wi le témoin naan koon gàcce ngaa laa ma bugaan géy dani ci parrainage bi wane nga ci bëgg-bëgg dëgg-dëgg turbine naan koon waaye ka ko ñu ñëw rek fi mu ne suñu yaram dafa tàng ndax candidat yi ci boppam sept sages yi la ñuy déglu bés bi le jour naan kon chance ñi nga xam ne daanaka ay candidat su tuut dañ leen dippee ak ña nga xam ne candidat yu pataa yi la léppay leer mbir yàggatul vox populi naan kon alxamis gii bu 10 heures jote ci la ñuy tàmbali nag defub tirage ngir xam dëgg-dëgg kan la vérification am di njëkk jàll Mamadou Lamine Diallo naan en tout cas candidature yi nga xam ne sakkan nañ lool faw na ñu jël ci dogal dogal goo xam ne dina tax yaama neex ak waxaale candidat la ñu woon ci élection présidentielle yi ñu jël ci matukaay ba fa ñu déggee waxu présidentielle ci réewum Sénégal dañuy fàq wala tribune yéene kaay naan man Karim Meïssa Wade ak Khalifa Ababacar Sall day dàqee nañ leen ci présidentielle bi naan leen acca ndax Mame Mbaye Niang nag daal dinay le ni ñoom ñaar nag bu nekkee dafa am ay manquement yoo xam ne am na ci seeni amande nañu woote waat dialogue ngir fexe ñu doon candidat ndax dialogue bu njëkk nee ñu woon candidat moo ko waraloon ndax commission politique bi waxtaanewul nag ci waxuk amande ya te yi nag ñu wax ci wala ndax lii nag moo nar a naj ñaari gaay yi Dakar Times naan kon en tout cas parti démocratique sénégalais moom dara doxul congrès bu soxna yi nga xam ne dañoo waroon samp Karim Meïssa Wade def koy secrétaire général national dafa mujj daal di géej ngir xeexoo ci seen biir madame Woré Sarr mi nga xam ne daanaka icône la ci parti démocratique sénégalais yéen kaay man kan dénk renouvellement structure yi moo ko naroon saax saaxee heureusement ba mu dem à temps ngañ seen secrétaire yi naan lépp Karima Karim ci boppam moo bëggul ku teggi ay kàddoom dowaaga mu nekk di yónnee message ka wax la ñuy def lii ci boppam moo tàmbalee yàq parti démocratique sénégalais genn responsable ne dara Saliou Dieng mooy violé texte yi ngir teg ay pion may sa Wade nag war a xam ne bu ñu ko jàppalee nag bàyyam Abdoulaye Wade tax du moom yéeni kaay bi naan man en tout cas seen investiture ba xeexoo la mujjee ba maar day taali le quotidien le quotidien naan man boobu agent judiciaire bu état bu Sénégal daal dinay defub recours ko nag kawe ba ngir riiguk turuk Ousmane Sonko ci liste électorale yi mani la ba ñu nee suba suba la date limite bi ca agent judiciaire ba daal di defub recours yéeni kaay ma jambal naan man en cereb Ousmane Sonko ngay xajam 24 heures yéeni kaay jox kàddu professeur Sidi Alpha Ndiaye Sidi naan dugal Ousmane Sonko fi ne turam mi ci liste électorale bi daar daar ab wareef la ci réew mi yoon bu waxee exécuté rek te candidature Ousmane Sonko beeg Bassirou Diomaye Faye bi amul lees ko mën a dindi ci réewum Sénégal mënta ne la ca des nag professeur Sidi Alpha Ndiaye ne bappam daal di bàyyi Ousmane Sonko mu daal di jàll le soleil yéene kaay naan ña nga jub présidentiel ba moom sénéra ma ngay xupp ma nga naan diggante juróomi fan ci weeru janvier jàpp ñeenti fan ci weeru février 2024 képp ku fi wax politique day dees rëq sa ndigg du yéen a ngi dégg képp ku campagne ma ne la dees na dal ci sa kaw ko Quotidien daal di ne ma Thierno Alassane Sall moom en attendant ma ngay wax ma nga naan attention ci ñi nga xam ne jàpp nañ ne kenn mënta sàcc ay élection ci réew mi le témoin yéene kaay naan ak lu mën a am moom Amadou Ba day Pape Samba Mbuub ma ngay xam le ni mënta gañe ay élection ci réew mi loolu leer na yéen kaay bi naan man terewul Souleymane ma ngi ko daal di investir keroog ca sargal président Macky Sall ba nga xam ne mobiliser nañ ba maar day taali ci la defee investiture ne Amadou Ba la fas yéene jàppale ci présidentielle bi Souleymane Ndiaye njiital sapkoo ne dara ñaabar ñaabari jël ndam li teg ci loxol Amadou Ba Pape Samba Mboup ci la tem moo yéene kaay kon xanaa doo xool Amadou Ba ci boppam moo mënta gañe présidentielle bi ci lu leer tribune yéene kaay jox kàddu Abdoul Mbaye mu naan opposition bi day fim ne am nanu sañ waaye tam am nañu chance ngir téye réew mi ndax Sénégal ci boppam ñoo bëggub coppite te bu soppite amul day sénégalais daa ngeen dóor seen loxo ci ëkk te coppite googee ngir mu am faaw opposition bi booloo doon benn fexe nag ba élection yi daal di jaar ci yoon lépp daal di leer président Macky Sall nag nekkul mooy président dafa war a joxe ordre ngir ñuy woteel Amadou Ba déedéet ku mu neex na woteel ku ko neex te loolee ngir mu am faaw opposition bi boole seen doole ngir ñu mën a déjjatee ñi nga xam ne ñooy sonal nguur yéen kaayib dee média bi naan kon en tout cas opposition bi moom bari na ci ñoo xam ne takku nañ ba dëgër ne naana bokk na ci ñoom Abdoulaye Sylla bu ABS 24 yéenekaay bi naan maan diggante jet privé ak yeneen woto de luxe lii la Abdoulaye Sylla candidat du gisee ci élection présidentielle bi waxtu woowu la Témoin yéenekaay nan man fukk ak benn ci ay dëkk-dëkkaat yoo xam ne ñi ngi ci ngéeñeen ña ngay ñaxtu nag fàtte gi nga xam ne suñu politique yi fàtte nañ leen ko ñuy dund jaxan na ma ci seen biir réew Tribune yéenekaay nan man ngir soxna yi mën a demal seen bopp Fatou Faye Gueye daal dinay taxawal GIE yaay ja agro business daanaka juróom-ñett fukk ci ay millions ñu financé ko soxna yi ngir ñu mënal demal seen boppam am seen cëggal guy faatu naan fi mu ne jooyanti état rek ndax état mënta jàppale soxna yëpp faaw ñenn ñu dugal ci seenug loxo yéenekaay bi nan man direction de l'emploi it ma nga xool fi mu ne nees def ba xale yi seen xëy mën a yomb ci réew mi Pam Modou Fall naan taxawal nañ plateforme boo xam ne diggante métier yi ba ci wàllu salaire yi ak entreprise yi soxla noonee lañ koy daal di defee ba wutum xëy mi mën a yomb ci réew mi ba ci taxawal ay entreprise xool dëgg-dëgg marché bi lan la gën a soxla plateforme boo xam ne xëyum ndaw ñi daal moom moo koy tax a jóg Alassane Bala ci turbine yéen a kaay naan man nañ wax ci coowal Ndella Madior Diouf li ndax taxaw jiiñ ko Ndella kese day daal di yomb Alassane naan keroog ba nga xam ne Ndella mi ngi def lii ci réew mi amul benn yoon boo xam ne sunu autorité yi dem nan saytu ji loolee xool nees ko defee ba mu amee it pënd bu wuri ministère de la femme mi nga xam ne saa bu jógee nee ñu mi ngi financé soxna yi lan moo tax deful ab communiqué naqarlu Alassane naan bu dee falaat seenu candidat daal sawar nan ci waaye teqale tuut tànk yeeg ak jafe tout tànk yeeg métti tànk yi ak faatu te leen ci réew moo xam ne nee ñu réewum teraanga la Alassane naan lii bu amoon ci réew mu sérieux leneen la ñuy wax waaye du lii Sénégal nag mooy réew moo xam ne lu waaye neex def te dara du la ci fekk bu leen fàtte ni ca Tiwaawoon service ba ñuy denc xale ya tàkkoon na fi fukk ak benn ci ay tout tànk yu doogu juddu daal di fay lakk ba faatu te lépp nag négligence moo ko waral ba tey ban bopp lañ ci kupp benn Alassane naan ak lu mën a am basta yéen kaay bi dee bi naan man balaa ngay wax basta kay waxal violence bi nga xam